sama naataango ba xam ne mooy euh, Ahmed Yahya bu Mauritanie ak ki nga xam ne mooy <coughs> Jacques Anouma bu Côte d'Ivoire li ma ci wax lenn la tey CAF bu ñuy xool bi mu juddoo ba léegi doomi suñu région bi suñu sous-région bi mosu ko jiite xam nañu ne Afrique de l'Ouest moo gën a xarañ ci wàllu football ci catégorie yëpp mais boo xoolee ci wàllu njiit yi suñu représentativité dafa dess nous xolé ñi mësa jité euh, euh, Afrique du Nord euh, nord ouest nord nord est plutôt wala même carrément à l'est donc ñoñu ñoo mësa jité ak centre bi muy président Ayatou nga xamné mom dir fi dafa donc 60 ans après plus de 60 ans xalaat naa ne li tax ñu bare nekk ñett ci kanda wéeru na tam ci loolu tey dafa nekk xëj na demande lo xam manam suñu euh, ñi nga xam ñoy ñoo dirigeant yi euh, suñu région bi dañu bëgg jël li nga xam ne mooy euh, CAF ñu jox ko doomi Afrique de l'Ouest pour mu jité ko donc lolu moy li li ñëk li nga xalaat moo tax ñu ñu am ñetti candidat benen mbir mi aussi ñooñu wax naa ko samay natango ñu samay xarit nañu Jacques Anouma bi muy benn moment di présenter wu devant président Ayatou man bokkoon na si ñi ko doon jappalé parce que dañu bëggoon changer li nga xam ne mooy texte yi pour mu bañ a falu ma ma nekkoon ci ñu ko doon xeexal ci loolu te xëj na jëmmam ci la woon mais tam li gënoon am solo mooy ne dama bëggoon loo xam ne dama xalaat ne mooy lii yoon donc yàgg nañu ànd xam na ma dañuy waxtaan même bi mu déposé candidat parce que moom moom moo njëkkee déposé oo oo naa ko wax naa ko li ma xalaat mu wax ma li ma xalaat ñu joxante dig daje ne nañ déposé après bu waxtu jot waxtaan jotee nañ ko def Ahmed Yaxya tamit ñoo bokk kuréel bi nga xam ne comité exécutif la sama rakk la moom li ñu seq dafa xaw a fort sax parce que euh, ay fan yi la ñu génn ay bés yi ñu génn ñu ngi waxtaan ne euh, man ñaari yoon ci ñetti mandaa yi mu def man maa dem maanaam euh, représenter FIFA ak CAF pour superviser élection moom sama élection yi mujjee moom la ñu indi pour mu représenter FIFA ak CAF mu wane rek ne jegeyaatoo nañu torop mais bu weesoo loolu. manam li def ni compétition la dañ koy def ci yar ak teggin waye tamit baña a bunte yi ci waxtaan parce que élection mën nga ko gagné premier tour waye mën nga ko gagné deuxième tour mën nga ko sax troisième tour donc tay dañuy xol ki gëna jek ci walu taxawayam gëna am manam lo xamne yalla baxé nako pour mën jité mbir mi ñu jital ko motax man ci sama xalaat bu gatt jappana né euh dina continuer di waxtaan ak ñom pour ñun ñëpp ñu dajalo

wóolu nañ ma wég nañ ma donc te loolu dafa am solo ci élection donc moo tax ma ne li doon gën de mooy ñoom ñu ñëw ànd ak man ma jiite mbir mi pour ñu mun dem jox Afrique li nga xam ne moo ko moom Afrique de l'Ouest pour jiite Afrique d'abord ko li moom équipe bu taw bu am doole ak njiit boo xam ne xëy na dina am taxawaay boo xam ne dina mën changer maanaam xar kanami kaf ci nu mu gënee amaana def nañu ay jéego yu baax donc loolu mooy li nga xam ne moom laa mun wax ci affaire ñetti candidature ci benen fànn gi mu jëm ci euh, benen candidat bi nga xam ne mooy Patrice Motsepe euh ñu bare sax guñ ko parce que xamaguñ sax xar kanamam parce que lolu moy wane ne du ko xamné ku fës la si wàllu nekk ci kuréel yi nga xamné ne ñoo ñoo ñoo football africain au plus haut niveau muy comité exécutif muy assemblée générale yek muy euh, euh, comité d'urgence ak yenen sax commission yi nga xamné ñu ngi ci CAF

ci sama xalaat bu gàtt waruñu am inquiétude par rapport à ça waaye nag candidature bu ñu a acteur football la na réussite si dëkkam loolu tam ay ay qualité mais inexpérience bi mu am ci wàllu euh, yorin li nga xam football au plus haut niveau au niveau continental def naa loolu dina nekk bu ci euh, aussi pour terminer ci wàll ci euh, nag man maa ngi ni yoruma ay milliards mais gëm naa ne sénégalais yi bu ñu mànkoo nekk benn ay multimilliardaire laay nekk ci yéene ci koom bi nga xam ne moo ma campagne mais aussi ci jàppale ci zahir ak baatin def naa dafa solo trop tey candidature bi du candidature Augustin Senghor ca njëlbeen waxoon naa ko nee woon naa ñu bare ñu bare dañ ma doon laaj pourquoi doo dem ba ma wax seen benn naakoon naataango journée ma ne su demoon bay waa kaf yëpp nee ma yow boo duggee rek day fal te sama njiit dëkk nee moo ma demal sóobu ci ci élection yi duma ci dem parce que loolu mandarga bu am solo la parce que poste bi may dem du postu fédération football bi du poste Augustin Senghor poste réew mi la amoon nañu ay taxawaay yu rëy ci ay kuréel yu bare ci ci sport en général ba léegi am nañ ko koy mu ngi ci Euh, CIO am na ñeneen ñu ngi yëngatu si yeneen kii mais football mosuñu si exister gannaaw Mawadou Wade su ma juumul sax defe naa moom cooptation la jaawoon jàpp naa ne man maay premier sénégalais bu ñu tàbba ci instance CAF te loolu jaaduwul parce que xam naa man ci génération yi fi jaar yëpp amoon nañu ay nit yu xarañ. mais xëj na ñun ni ko yeneen dëkkee yi di defee mànkoo nekk benn bu ñu nee ah diw mooy dem sénégalais yëpp topp si ginnaaw ne Sénégal mooy dem xare. buñ ko defoon ni kon bu yàgg gis nañ ñu fi jaar si ay dirigeants ñoo xamne tay sax mën avons am ñoo xamne say bokk ni si ñu formé ñun mais mosuñu mën egg fi nga xamne ci pour ñuy décision Nous xam nañ tamit lu ci faire fait gisee ñun suñu xex comité dañu décision bo fa nekkul ñu jël décision contre yow. donc sénégalais terminer tam ci euh, état bi motax parce que tay sama kilifa euh, waxtan na mom moom te dinañu bu baax donc mais soxla ñu tam jappalé sénégalais jappalé sénégalais ñu mobiliser les moyens nécessaires pour dem outil poste bi te gëm naa ne ko touriste Sénégal moy gëna law moy nous juk parce que tay jotna na si sama xalaat bu gatta ñu ne doomi sénégalais mu ngi jité kaf te kaf mu ngi jëm kanam remercier ces questions.